vingt chapitres. Mhm. Euh, euh, alors gis nga tableau bi ma la présenté nii c'est le tableau c'est un tableau de notation de l'économie sénégalaise euh, am na liggéey bu bari boo xam ne def nañ ko sur les finances publiques ba Sénégal doon am sur plusieurs années depuis bi ñu lancé le plan Sénégal émergent la notation B plus mhm. c'est-à-dire les partenaires techniques financiers considèrent que le Sénégal est une économie spéculative, mais qui a la possibilité de faire face à ses engagements euh, comme, la, comme la dette. Alors, est-ce que tamit gouvernement bi on dit que l'économie n'aime pas l'incertitude mais est-ce que le gouvernement aussi mun na risquer une dégradation des indices de notation du Sénégal que le Sénégal moo je peux avoir le tableau que le Sénégal wàcc c'est c'est-à-dire mu nekk une économie spéculative boo xam ne mënul fair face à ses engagements léegi ñoom loolu nan la ñu koy expliquer parce que dafa am des des implications à l'international dañ ñu doon noter bien parce que am na euh, déficit bu ñu doon bu ñu doon présenté am na une maîtrise de la dette bu ñu doon wane ñu naan la dette est soutenable euh, bailleurs yi di di di communiquer ci loolu Sénégal ba ñu demee di wut xaalis groupe consultatif loolu la ñu yóbbu malgré qu'on ait une économie spéculative on notre dette est soutenable on na la possibilité de rembourser et de faire face à nos engagements léegi est-ce que c'est une bonne idée est-ce que ce n'est pas un risque politique que ñii ñëw noppi ci déficit bi noppi ci explosion dette bi ñu dem ba ci kanam les indices de notation wàcc Sénégal wàcc niveau boo xam ne euh, mënatul endetté wu te ñoom bu ñu endetté wul ñu mën a financer aussi seen plan de développement économique. mais mais mais Maïmouna Maïmouna tu es journaliste quand même tu suis ce qui se passe. oui je suis journaliste. voilà euh, y a eu un rapport en juin. du FMI. waaw waaw sur la situation du pays ah rapport boobu lan la wax par rapport ak rapport bu mujj bi rapport boobu daf ni tout est au beau fixe Sénégal mi ngi ci état bu baax. ñu tegaat trois mois FMI defaat beneen rapport ni y a des problèmes mais yemul foofu FMI dafa wax pour pourquoi am ay problème te problème yooyu li tax problème yooyu am lu ñuy mën a teg loxo la bu FMI ne par exemple le secteur du bâtiment yow xam nga réew bâtiment buy dox réew day dox bu bâtiment doxul dara du dox ñi dañoo ñëw jël ay mesures xëy suba lépp lu jëm mais xoolal secteur bu mel ni bâtiment li ci gravité yépp autour ñiy jaay ciment ci lañ bokk. ñi jaay fer ci lañ bokk menuisier yi ci lañ bokk ñi def saf ci lañ bokk carreleurs yi ci lañ bokk même maire biy jaay coof caaf ci ci journal yi ci la bokk maçon yi ci lañ bokk mais loolu corps de métier yooyu yëpp nga xëy suba arrêté construction yëpp dans le pays sur tout le littoral loolu il faut mu am impact ci économie bi FMI waxul dans en l'air daf ni secteur yii yii yii yii moo taxaw moo tax économie bi taxaw. mu ne indice de croissance. voilà ñu yaakaaroon 7,2 pour cent donc booy wax. donc ko mën a donc booy wax booy wax. situation bi réew mi toll nii situation boo la boo xam ni décision yi nguur gi jël moo ñu indi ci situation bii. parce que FMI nekkul rek ni yëf dafa soppeeku daf ni yëf dafa soppeeku mais lii ak lii ak lii moo tax mu soppeeku te loolu ñu wax. lu nit mën a teg loxo la parce que lu ñuy dund la. parce que dafa ne. le ah, secteur de l'agroalimentaire voilà voilà du bâtiment du BTP. ak des industries extractives. donc xam nga moo nekk en crise voilà léegi secteur yooyu bu nekkee en crise c'est normal que mu am impact sur l'économie globale léegi. mais en plus mu yokk si mu yokk si mais mu yokk si mu ne. teg maa bàyyi rek ma àggale ngir yàlla. waaw va aussi du ping pong parce que je t'explique. question yi wax ni dafa sérieux nañu nañu bañ a def euh, punchline c'est important euh, gis nga euh, il faut ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ñu xam ne affaire bi du communication yow ñëw nga jox na réew moo xam ne nii bi gars yi defee revue nee na réew mi ngi ci jàmm nga jël ay décision décision yooyu retardé réew mi gars yi ñëw na la décision yi mooy problème bi da ngaa war a xoolaat sa bopp xoolaat choix yi ngay def bu fekkee am nga programme wala am nga plan boo war a dérouler nga dérouler ko pour améliorer yëf yi mais affaire du communication rek communication baax na lool waaye toog rek di communiquer cest à mën ngaa communiquer communiquer ba jërum réew mais communiquer communiquer ba defar réew moom amul. mais gars yi xoolal nañ tirer leçon ci li ñu leen wax ñu changer. mais FMI dafa yokk si teg ne mhm. état du Sénégal bu bëggee résorber déficit yooyu. Mhm. il faut que mu wàññi exonération fiscale yi dafa diis ci assiette bi il faut aussi que ñuy lever les subventions sànq yaa ngi wax naan augmentation de l'électricité buy ñëw euh, daaw ma Moussa Awa ba mu demee FMI Banque mondiale dañoo d'accordoon ak ñoom ne dinañu wàññi li nga xam ne moom mooy subvention yi parce que subvention yi moom mooy creuser déficit bi daaw ñu lever 300 milliards de subventions électricité bi yokku ak euh, ñu maintenir les prix sur certains prix pétroliers te document boobu Moustapha Ba signé woon dafay couvrir dafay couvrir ba 2025 et c'est en 2025 bu ñu lever 700 milliards de subvention yi état di dugal 2025 la ñu waroon am déficit budgétaire bu 4,9 pour cent donc bu électricité yokkoo c'est prévu c'est tous les ans dina am euh, augmentation sur les grandes tranches de consommation. Mm-hmm. ah léegi ba léegi ba léegi may mën a waxuma fi dara. non c'est-à-dire yow da nga ne Moustapha Ba. Moustapha Ba ah. ministre Macky Sall la woon. waaw mais mais l'État est une continuité. defal ndànk defal ndànk euh, may mën a bu ñu jaxase xelu nit ñi waaye yow it mënoo toog 10 ans nga ne yow da nga am projet boo xam ni boo ñëwee Sénégal di nga régler problème yépp projet bi mille cadres ñoo ko xalaat tëgg ko dangay ngay problème mu Sénégal pour toujours ñu jox la réew mi ngay wax ay Moustapha Ba mais loolu c'est pas sérieux. waaw mais. non non non dafa may mun na non xam nga nañu nañu bàyyi foowee xelu nit ñi. yaa ngi dégg yow am nga projet dafa nag am nga projet am nga programme xëccu nga réew mi jox nañ la ko. parce que yow nee nga la fa Macky Sall doon def yëpp baaxul xëy na la Macky Sall doon def bu baaxoon ba tey mi ngi fi. wala boog candidat am gañe na sénégalais ci boppam fekk nañ ci fekk nañ la ci yow ci li nga wax ni yëf yi baaxul jël réew mi jox la ko waa léegi nga ñëwaat ni bon d'accord jël naa réew mi waaye léegi ña fa nekkoon mais loolu c'est déjà dit. mais les engagements avec les bailleurs mais les engagements avec les bailleurs ne dépendent pas des aléas de l'alternance. non non non un engagement je ne suis si lu ñu engagé ak FMI ak Banque mondiale. xaaral ma la. boo dee ñëw nekk pouvoir bu bees mën nga am yu bari yoo xam ni pouvoir ba fa nekkoon du ko am est-ce xam nga baax li ma la wax boo ñëwee pouvoir bu bees mën nga am ci ñoom yu bari yoo xam ni boo ko mënee négocier pouvoir ba nga wuutu du ko mën parce que boo ñëwee nekk pouvoir bu bees contrainte yi ngay am FMI da koy xam banque mondiale xam ko ñi ngay nekkal du ñu ay dof ay nit lañu yàlla paramètre politique amul négociation. financière bu loolu amul mais nag il faut savoir négocier ça loolu aussi dafa bokk ci xereñteef. mën nañ ko suspendre. il plusieurs fois. mun nañ ko différer ah, voilà. mais par exemple par exemple il est arrivé plusieurs fois. pouvoir bu bees ñëw expliquer Bayer ni concrètement lii mën nañu ko def ñu ngi soog a ñëw pour telle et telle raison on peut pas le faire. mun nañ suspendre mën nañu déférer mais l' engagement. mën nañu sax en l' état reste sax changer nature engagement bi xam nga lu tax. Ah. mi ngi non non defal ndànk laaj ma pourquoi. comment. parce que yow mën nga ñëw wan FMI ne ko man mën na am capacité de mobilisation des recettes boo xam ni nguur gi fi nekkoon amu ko loolu boo amee capacité boobu am na subvention yu bari ñu lay lever yoo xam ne mën nga ko bañ a lever. alors mais c'est ñii dañoo indiwul da cest à may mun na le problème mooy ñii dañoo indiwul saafara ci dara indiwuñu solution ci benn problème ba pare yaakaar ni lépp communication la ak xas ñi fi nekkoon mais loolu aussi dafa may limite quoi. alors yow indiwoo dara yow yaa ngi ne am nga projet defal ndànk dix ans kenn mënta dégg ci réew mi ndax projet bi ndekete projet bi c'est du pipeau. nga ñëw jël nguur gi ne. il sera présenté le non defal naa ñëw nguur gi ne yaa ngi dem septembre te yaa ngi bëgg a rey nit ñi ci projet. yow bi nga ñëwee ba léegi tegoo fi dara lu bees loo xam ne nit ñi mën nañ ci yow sa problème rek mooy ñaari affaire ñi fi nekkoon ñoo def li ñu def la deuxièmement dinañ tëj lii dinañ ko dugal kaso. yaa a deux signes très important ci conférence de presse bi ñetti signes il faut nit ñi lire ko bu njëkk bi mooy Ousmane Sonko dafa am benn journaliste tubaab bu ko laaj ni ko léegi. depuis six mois bi nga fi ñëwee ba léegi lan nga nar def wala nan nga nar a def pour wàññi jafe-jafe askanu Sénégal xam nga lan la ko tontu loolu du sujet bi est-ce que tu te loolu ni mu grave loolu rek mooy sujet bi yi ñuy wax yépp dox ci xelu nit ñi la ak ndax doomu aadama yi benn sujet la Sénégal am xam nga mooy lan nit ñi lekk ba suur naan ba màndi am courant bu doy. mën a déplacé wu ku bëgg a jàng-jàng ku feebar ñu faj amul beneen sujet li des yëpp ay waxe naqas ak kandang la. na la ñuy defee loolu. bu ñu defal naa defal naa defal naa defal naa nga ni loolu du sujet bi xam nga moo mooy ñii bi ñu ñëwee ba léegi ci nguur gi c'est vrai que nit ñi du seen sujet xam nga lan mooy seen sujet ñoom xaste jiiñ nit ñi ay nit ña fa nekkoon euh, préparer ay dossier pour dugal moo